internet yi ñuy bàyyi xel ci seen info point net ak seen info international ñu ngi leen di nuyu fas leen dëgtal li gën fës ci xëtu njëkk yéenekaay yi tey samedi di décembre ñu tàmbali ko ki yéenekaay national bii di la soleil ñoom nag dañoo fësal seen xët wu njëkk mbirum liberté d'informer ak li ñu naan respect du secret défense ñu ne nag euh, seen diggante am na ab frontière euh, boo xam ne kon lu ñu war a sàmmanteel la Les Échos fësal seen xët wu njëkk Pape Alé Niang ñu ne démb nag donte wér yaramam xaw na sooxe jàkkaarloo na ak kii di àttekat bi ci déglu bi nga doon déglu ci xóotal ci mbir mi ñu ko yóbboo kaso ñu ne moom nag neena na fier na ci journaliste ba mu doon ay awakam déposé nañ demande de liberté provisoire fësal nañ itam euh, mbirum adjudant chef Didier Badji ñu ne nag euh, famille sax déposé nañ plainte jëmale ci Ahmed Suzanne Camara ak kii di Bah Diakhaté l'info yéene kaay fasal ci xëtam bu njëkk budget bu ministère des finances démb wote nañ ko ca assemblée nationale ñu ne nag député yoo xam ne ànd nañ ca am na ñoo xam ne seen xel dalu ca ku ci mel ni Ayib Daffé ak kii di Mamadou Lamine Diallo laas yéene kaay fësal ci xëtam bu njëkk ministre des finances mi nga xam ne nag ñu ne démb député yëpp booloo tàcc ko ci assemblée nationale gannaaw nag bi mu défendre lii di budget ba nga xam ne woote nañ ko sunu làmb fësal ci xëtam bu njëkk Balla Gaye ak Boy Niang war a daje le premier janvier ñu ne nag troisième face à face bi dina am ci dimaas ji. stade yéene kaay fësal ci xëtam bu njëkk mondial 2022 ak nag ñaareelu fanu quart de bi tey nag ñaari match yu neex diggante France ak kii di Angleterre wante itam Maroc wala jàkkaarloog kii di Portugal. direct news fasal ci xëtam bu njëkk ministère des finances et du budget ñu ne démb nag député opposition ak pouvoir ñoo félicité ki nga xam ne moom mooy Moustapha Ba ñu ne ñu ne nag budget bu ministère des finance arrêté nañ ko ci trois cent soixante neuf milliards ak lu tegal fësal nañ itam Fadilou Keita bokk ci cadre Pastef yi ñu ne gannaaw bañ ko tegee loxo nag démb yóbbu nañ ko kaso enquête yéen kaay fësal ci xëtam bu njëkk ministère des finance di Moustapha Ba ñu ne démb nag moom budget la ñu tëjee lii di marathon budgétaire bi ñu ne wante nag lam fa wax dal député yi ànd nañ ca te tàccu nañ ko fësal nañ itam lu toll ci mille cent trente cinq gendarme stagiaire yoo xam ne dugg nañ ci biir gendarmerie Vox Pop fësal ci xëtam bu njëkk Ousmane Sonko ñu ne nag euh, gannaaw ba mu soppee ay turu ay mbedd yu nekk foofu la ca Ziguinchor te lii di cour suprême annulé li mu ne nag dina topp cour suprême ca justice. fësal nañ itam vote bu loi de finance 2023 ñu ne nag budget bu Sénégal dina toll ci six mille cent quarante quatre milliards. Sud Quotidien fësal ci xëtam mu njëkk déclaration de politique générale bi premier ministre Amadou Ba war a amal ak coowal nag euh, règlement intérieur assemblée nationale bañ naan dañ koo falsifié fi mu nekk nii. Le Quotidien fësal ci xëtamu njëkk président bu assemblée nationale di Amadou Mame Diop muy ñaawlu nag violence yi nga xam ne ma ngay am foofale ca assemblée nationale. Libération yéenekaay fësal ci xëtam bu njëkk mbirum Samira Zafor ñu ne nag ab ressortissante marocaine la bu nekk fii moom nag da doon utali client ay jigéen yoo xam ne dañuy jaay seen bopp ba léegi suñu naataango yi xibaar nañ ne néew boobu nga xam ne moom lañu gis ci géeju Saint-Louis nekkul néewuk Didier yi source a fësal ci xëtam bu njëkk clôture session budgétaire 2022 ci assemblée nationale ñu ne ki nga xam ne nag moom mooy président ba amatu maam Diop mer na ba futu muy fàttali député yi nag ne Sénégal ñu ngay xaar leneen seen ñoom ñu am responsabilité te li ñuy def ñu bàyyi ko fësal nañ itam mbirum Pape Alé Niang ñu ne fi mu nekk ni nag ay awkaam déposé nañ liberté provisoire procureur war a àddu ci mbir ma Walf Quotidien fësal ci xëtam wu njëkk mbirum corruption muy gar ak li nga xam ne moo koy suuxat fii ci Sénégal dikkaat dikkaat nañ itam ci li ñu ne nguur gi noonu lay xooqatale ak itam jàpp ay opposant ñu ne nag loolu nekk loo xam ne sax lu baax la ci ñoom